yaatu foo xool di tabax ñoo ngi ci cité Baraka bu bees bi ñetti fan ndax ci diggag bi ñuy jot ci fukk benn tabax yu yees yi fii ay sàkket ak kër yu daanu ñoo fi nekkoon yàggul dara ñoom ñi dëkk ci kër yu bees yi war a am lu ñuy joxe bu ñetti nit ak douche ak waañ ak saal bi moo nekk vingt-six mille ki nga xamante ne ñaari néeg ak saal douche ak waañ moom mooy fay ki nga xamante ni benn néeg la ak saal ak douche waañ mooy fay quinze mille francs ki nga xamante ni néeg kese la am ak douche waañ mooy fay neuf mille xaalis bi ñuy joxe di delluwaat ci biir dékkuwaay bi entretien bi fay bi courant bi la mooy courant wu service généraux yi war a yéegal ndoxu sous-presseur bi ci xaalisu entretien boobu gars yi di joxe moom la ñuy chargé courant en même temps ci la ñuy fay concierge yi ñi nga xam ne ñooy nettoyer bâtiment yi cour yi ak ak escalier yi quoi waaw. lenn si ñi fi dëkk nag di jooytu liñ leen boolewul si doxinu dëkk bi ñuy faral di am jafe-jafe si wàllu éclairage. weer bu nekk damay joxe jox vingt six mille francs pour. Ah. Euh, entretien bi. ci sama côté bopp respecté woon li nga xam ne moom laa diggaale ak ñoom parce que couloir bi. Ah, guddi gi amul courant. fii bi ci kaw coupé nañ fii ndox un mois et amuñu benn ndox man yoruma arrière ndox yoruma arrière courant njiitu réew xamle woon na ni yiite bax bokk nañ ci programme 100000 logements bi nguur gi teg